Bonjour à tous. Euh, pour une fois, je vais commencer mon propos par là où le doyen Habib a terminé. je vais le faire avec la langue de Molière parce que la cible est ce qu'il est communément convenu d'appeler la communauté internationale ou les partenaires au développement. Je veux dire à ces partenaires au développement que le président de la République du Sénégal, celui-là qui vient vers eux, puisque le peuple sénégalais a fini de lui tourner le dos, pour dépeindre l'opposition sénégalaise sous les habits et le visage d'une opposition d'abord irresponsable, violente, une opposition qui abriterait des terroristes, mais une opposition qui serait contre les intérêts étrangers. Puisque c'est ce tableau qui est présenté aux chancelleries et aux différentes institutions internationales. La plupart du temps, ces derniers ne font aucun effort pour avoir le contact minimum avec cette opposition qui a fini d'avoir la confiance du Sénégal et des Sénégalais puisque cette opposition aujourd'hui représente quasiment 54% de l'électorat si on s'en fie aux dernières élections. Je voudrais dire à cette communauté internationale que ce président de la République, qui tend à leur faire croire qu'il est la seule garantie d'un Sénégal stable, d'un Sénégal qui peut coopérer correctement avec eux, qui peut garantir leurs intérêts, d'un Sénégal démocratique. Eh bien, ce président de la République est ce garant de la gabegie, de la malgouvernance, du détournement des deniers publics, et particulièrement dans des moments extrêmement graves, des moments de crise sanitaire, des moments où énormément de Sénégalais ont perdu la vie, que ce président de la République puissent être le promoteur, mais également le protecteur de pratiques malsaines qui ont permis à certains de ses collaborateurs, ministres particulièrement et principalement, de détourner des milliards de fonds auxquels ils ont contribué. Vous, vous avez contribué, vous, partenaires au développement, institutions internationales, bailleurs de fonds, partenaires bilatéraux, partenaires multilatéraux. 84% de ces fonds sont issus de vos financements. Mais 84% de ces fonds traduisent l'effort du peuple sénégalais, un peuple qui souffre, un peuple frappé de plein fouet par la pauvreté, le chômage, l'incurie dans tous les secteurs d'offres de, de, de, en biens et services publics. Et ce peuple-là, malgré tout, se serre la ceinture pour donner caution à ces gouvernements, leur permettre d'emprunter à son nom, mais également de contribuer. Ce peuple-là qui contribue à, contribuer, qui continue à contribuer fiscalement pour que l'État puisse avoir les moyens de sa politique. Ce président de la République-là est le garant de ce système. Ce n'est pas seulement à ce niveau-là, puisque les rapports, il y en a encore et encore. Le dernier rapport sur le Sénégal du département d'État a souligné que des institutions, des instances, des organes ont été mis en place pour contrôler la gouvernance publique, mais que souvent les rapports ne sont pas suivis d'effet. Je vous ai rappelé que dernièrement, la présidente sortante de d'OFNAC a dit que rien que l'OFNAC a aujourd'hui plus de 40 dossiers sur la table du procureur. 40 dossiers de détournement de deniers publics. C'est des dizaines, voire des centaines de milliards. Et c'est cet homme-là qui vient se présenter à vous comme étant un messie et vous faire croire qu'il peut violer encore la constitution du Sénégal pour se prévaloir d'une troisième candidature, parce qu'il serait le seul à pouvoir vous garantir une collaboration. Je dis à ses bailleurs, ses partenaires qu'ils ils gagneraient à mieux connaître le Sénégal. Le peuple sénégalais est un grand peuple, un peuple mature, un peuple digne et fier et un peuple très attaché à sa démocratie. Et ce peuple tient au respect des règles parmi lesquelles la plus fondamentale, c'est sa constitution. Ce peuple tient à la démocratie comme tous les peuples. Ce peuple tient à ce que les transitions se fassent de la manière la plus apaisée, la plus démocratique, et qu'il est seul le dernier choix par rapport à celui ou à ceux à qui il veut confier le destin de son pays. Si ce président de la République, vous, communauté internationale, qui instrumentalise la justice pour s'attaquer tous les jours à l'opposition, à la société civile, à la presse, à tous les symboles d'une démocratie vigoureuse et à tous les symboles de la vitalité démocratique, de la respiration démocratique dans un pays. Vous en êtes conscient et vous le voyez. Nous ne faisons que vous rappeler. Le wax Sénégal mooy li xew bettul kenn xam nga il faut ñuy waxante dëgg bu ñu mel ni xamuñu woon li xew wala ñu mel ni lii daf ñoo bett lii daf fee am amaat fi amaat fi amaat fi fi ñuy wax coowal pétrole bi ñun ñu wax ci lu bëree bëree bëri waaye dafa mel ni dégguñu woon il a fallu que ay journaliste bitim réew BBC def reportage coow li ne gañ looloo andi woon suñuy quatre cent Il y un rapport le cours des comptes déposé cours des comptes déposé rapport duggulee at wu des comptes déposé rapport ministre sangam ministre sangam directeur général sangam Non le inspection générale d'État di Non le CENTIF di Non le ko di lan dara mbokk yi dégg nañ fi waxu dorog dégg nañ fi waxu ay raxas biir dégg nañ fi waxu passeport ana ñooñu ñëpp ñi ngi dox seen dox seen seen yoon tranquillement te bis bu nañu jàpp fi waa opposition ci lu dul dëgg tëj leen ci kaso bi am nga immunité amoo immunité bis bu nañu jàpp fi journaliste tëj ko ci kaso injustice bi ne ci dëkk bi toll na foo xam ne bu dee mënul heurter Sénégalais yi bu dee mënul amul lu mu mun a jur ci Sénégalais ba li ñu xamoon ci Sénégalais ci fulla ci jom ci ngor ak ci bañ ak ci bëgg dëgg bu dee loolu mënul am dañu waxante dëgg fi ñu jëm du neex de parce que ñin ñi du jiitu ci xeex bi xeex bi métti na ci ñun torop ku leen wax ni méttiwul mi ngi wax lu ko neex waaye ñun lan la ñuy xeex ak kan la ñuy xeexal bu ñu doxee nag ba ñi doon xeex ñëpp banque seeni yoxo réew mi dina dugg ci guute goo xam ne mara day te askan nag moo ne lii di xew ci réew mi France ba Nicolas Sarkozy président de la République la président de la République tey ñu ngi koy topp ci lan surfacturation ci campagne du xaalisu France de nee nañu xadafee ko jox xaalis mu def ay surfacturation pour pour pour pour pour neub loolu loolu lañ koy topé tay. ba en première instance dañ ko condamné un an ferme mu def appel xoolal loolu wax naa leen keroog kaawu député eurodéputé polonaise boobu nga xamné Qatar la dem ñu may ko xaalis du xaalisu Pologne du xaalis Union européenne Tay ma nga kasso. États-Unis bee ngeen dégg barki démb dégg ngeen ñu ne déclaration fiscale déclaration l'impôt Donald Trump waa impo mujj nañ koo jox waa Sénat ñetti at waa Sénat di ko laaj pour ñu càmbar ba xam ndax da doon déclarer lu matul am déet ñu ne leen réew bu gën a fonk lii bu gën a fonk nu ñuy caytee alalam réew moom moo la gën a développé waaw ñun senegal xanaa tubaab bi dañ ñoo gën a bëgg seen bopp sénégalais yu bëree ngi bëgg a dem tugal tugal li leen may li ñu am mooy fexe ba alalu réew mi ñu sàmm ko mu dellu si ci waa askan wi loo leen may li ñu am de ñun ñëpp xam nañ lu xew ci réew mi amul sénégalais bu mu ump te ñëpp xam nañ ni Macky Sall mooy ndeyu mbilu ndax moo leen di fal ne leen dem leen ngeen utal ma ay électeurs yi li ma leen fal pour ngeen politique la. loolu mooy tibbal ci kees bi te lu ci mu ci am nag justice bi sama loxo la nekk sama waaw la ñuy doxee ku ma leen joxoñ la ñuy dem ku ma leen ne jàpp leen ñu jàpp ku ma leen ne bàyyi leen ñu bàyyi loolu ñu ñëpp xam nañ lan moo ko fi mun a dakkal mooy askan wi askan wi rekk ko mën a dakkal ndax askanu Iran gee di xeex ngir am démocratie ak liberté nit ñi di génn en masse di xeex te xam ni sa su ma génnee sama bakkan xaj na ci dañoo gën askanu Sénégal askanu Algérie mi xeex ba jëlee fa li fa nekkoon wala bu Tunisie wala bu Égypte wala bu feneen ak feneen ak feneen dañoo war a gën a bëgg suñu bopp réew mi est-ce ndaw ñi am nañu liggéey est-ce que paj mi jaar na yoon est-ce que jigéen ñi seen xel dal na ñu yor kër ñi est-ce que école yaa ngi dox. ñu wara jël ay milliards ci alalu rew mi diko jaarale fo xamne du yoon ñun ñepp ñukoy gis bu ñew ñu nepp na ko fex ba mu jall motax man askan bi rek lay waxal ñun de ñu xex bi luñ ci gobe gar ko waye nak ndimbal na ci fekk loxol borom Lele li ñuy laaj nit ñi du lu bari de te injustice bi nekk ci réew mi bu woyé nak gëm naa ni dina bari ñuy teggi seen loxol dégg naa ab journaliste bu def chronique taare ne Pape Ali est-ce que askan wi jar na ko doon wax ak Pape Ali ña ñun dañoo jàpp ni askan wi jar na ko moo tax jaral nañu suñu bakkan wi waaye léeg dañuy soxla suñu gestoo wala suñu woowee askan wi muuyuñu loolu baax na ci liggéey bi bëgguñu ñu jàpp kenn ci askan wi ñun mun nañu def lan waaye léeg day baax. la tax ngay sonn wala ñi tax ngay sonn boo leen woowee ci loo xam lu ne lu yomba def la boo wëti koo gis leen suñu nee rassemblement wax dëgg yàlla rawatina nag ndaw ñi parce que seen avenir la yàlla xam ne ni yéen ñu taxa a sonn su ngeen xamoon liñ leen yéene cofeel gi ñu am ci yéen ak yéene gi ñu am ci yéen ndax suñuy doom ak yéenay maase su ngeen ko xamone fuñ len wo di ngeen ñewu ci te liñu digënté ak yeen yalla yàlla xam na ni buñ ci yeggé ngeen gis résultat bi way suñu woy rassemblement kenn ku ne wara mëna bay dara digënté 3h ak 6h ataaya bi ngay tek di nan wala fi nga tok di waxtaan grand place mais xal dank dem fekk rassemblement bi parce que yeen ñu mëna a ci xex bi de ngeen xam ni. saa suñu organiser activité mu échec da ngeen dooleel Macky Sall ak li muy def tey bu ñu nee dañuy def teg ak activité mu échec ñoom dañ naan kon askan wi faalewu leen yéegu leen askan wi ñun lañu àndal askan wi li ñuy def naqariwu leen milliards yëpp ñu tudd fii ay nit randal ko askan wi dafa tàccu sax ne bravo loolu mooy tax mbir mi du gaaw a jeex bu bu bu wessu rek ñu andi benen waye bu ngeen doolelee ñi xex te ñi xex du acteur politique yi keese acteur politique la ak société civile yeen yeena ñu mëna a dooleel. tey jaay doole bi feus na ci lan Macky Sall mom japp na ni mom sa su ko nexé mu def ay activité gis ngeen ko mu dem Tamba ay milliards def nañ ko fu ne ci Tamba dem nañ fa yobbu ay car amul village bu ñu bàyyi waxuma la nak ñu joggé Dakar ak fenen pour nekk ñu dajale ay nit ñu ne lu rëy rëy teeru Macky Sall à moom am na sañ-sañu def lu ko neex waaye Ousmane sonk bu jógeen damay def nemmeeku tur mu yenu gendarmerie ne leen topp leen ko bu mu daje benn place publique ak ay nit loolu du injustice ñëpp di ko gis ñun amuñu sañ-sañu dox ci réew mi dem dajeek askan wi waaye moom am na sañ saa su ko neexee mu mbubboo euh, mu mbubboo mbubbu président de la république te ñepp xamni campagne la jëm loolu lu ko gëna reey ci injustice tay suñu ne dañuy manifester fan yépp semaine bu nek fouta Kaolack feneen ak feneen ay nit dajal lañ fa rassemblement yu maga maga mag ne troisième candidature lañu dajal waaye ñun suñu nee ñi nga dajale ñi ngi dem place de l'Obélisque préfet nañ leen ko loolu ba kañ ñu war ko nangu rek di sétal so waxé ñu ne ñi dañoo bari fitna. mu am ci réew mi ñoo xam ne nee nañu ñoom ñoo gën a xam ñëpp ñoo gën a màcc ñëpp ñoo gën a intelligent ñëpp jàng nañ téere yëpp lu xew nañ ñu ne dañuy joxe leçon te dooleen leen mus gis ci xeex na ñun respecté nañ ku nekk waaye nañ ñu respecté de nañ ñu respecté ndax lañuy xeex askan bi moo tax ñu jóg di ko xeex def concert de casserole ñu naan 31 décembre république foog ngeen di ñuy luubal euh, alal réew mi xam nañ ñuy république ku xam république fonk république di nga dinañ dënk alalu réew mi mu waroon dem ci ñi tëdd di sukuraat nga jël ko dugal sa poos Macky Sall dafa xam république bi mu nekkee fii ba léegi sal salfaañe république ku sàcc mu recevoir la nome la ku daw ak mandat jàmbur mu recevoir la jël na gis nañ fi sax ay nit yoo xam ne moom moo leen yóbbu CREI CREI di leen poursuivre mu dugal leen ci avion tukkee ak ñoom lan moo gën a mun a wàcce république loolu ñu ne wax ay waxu république 31 décembre ban rapport la am ak république su dee république la moom dafa gën a farataal sax dafa gën a faydaal waa askan bi su dee d'accord ñoo république ni ñu ko yore ñu xaar ba datu république ñu wax ko président moo tax ma ne ñun amuñu leçon bu ñuy recevoir ci ñu ken

dañu ne suñuy list yu gars yi te waruñu ko téye ngeen wuñu ci loo xam ne dafa kay woon sax suñu jot tubaab nag danaan qui peut le plus peut le mooy bu dee liñ leen woon suñu affaire la ñun yeewi askan wi donte ñun jàpp nañ yeewi askan wi mooy askan wi tey suñ leen woowee ci xaalisu alalu réew mi ñu luubal ak danger yi am ci démocratie Sénégal tey nga xam ne 2023 bi ah xalifa Ababacar ñaan nag ñaanaat ñun ñëpp ñuy ñaan waaye xel mën naa tey deux mille vingt bi ku ko xam ku ko xamul kon suñ leen woowee ci loolu ne leen nag liñ leen woo jafewut xale bu am cinq sax ba mag mu am quatre vingt quinze ans mën nga taxaw sa teraas wala sa balcon wala sa ëttu kër wala sa buntu kër daa di dóor ci casserole yi loolu jafewut laajuñu askan wi lu bëri ñiy wax bëgg a nërmal seen xel ñoom ñëpp dafa am ñu leen yebal fu loolu mooy saa suñu yëkkatee dara rek ñoom lu ñuy def ba saboté ko ci loolu la ñuy nekk waaye buñ ko saboté mu jàll xam leen ni yéen lañu saboté yéen askan wi waaye du ñun lañu saboté dañoo bëgg 31 décembre lañ leen ci laaj bëriwul diggante 20 ak 30 minutes mooy bu ñeen fukki ñaar fukki waxtu doore tàmbale muy vingt ba vingt heures vingt vingt heures bariwul jafewul dañu bëgg fu nit toll ci senegal wala ci àdduna sax muy riir ndax biñ ko defee le vingt deux juin TV5 France 24 BBC CNN ba Al Jazeera ñépp ko wone woon il faut ñu woon àdduna bi ni ñun am nañu lu ñu naqari ci ni ñu yore réew mi léeg-léeg damay sama tournée yi may def damay dem ci àll bi ci village yi jigéen ñi dañuy génn ak seeni cin di ma teeru ma xam ni kon concert casserole yeggoon na fu ñu ko xalaatul woon peut-être grande ville yi lañ doon gis dañoo bëgg yow chauffeuru taxi bi yow borom camion bi yow borom jakarta bi yow chauffeur particulier bi bu la fekkee ci circulation bi à partir de vingt le vingt deux juin gisoon nañu sax chauffeur taxi boo xam ne casserole yi la jël takk ko ci oto bi di daw ci ni dañoo bëgg bu vingt heures fu nit toll ci àdduna xam ni askan wi kontaanul ci Macky Sall ak njabootam ci ni ñu yore réew mi ci jamono joo xam ne askan bi sonn na loolu bariwut yow mi nekk sa biir kër ak âge boo munti am ak ngay góor wala jigéen le 31 décembre Sénégal war na riir ba suuf si sax di yëngatu parce que Macky Sall loolu rek la xam langage boobu ñuy fàttali nag ñun plan d'action la ñu am ñun Yewwi Askan dañu woote ci ñaar bu ci njëkk mooy 31 décembre concert de casserole ñaareel bi mooy le 6 janvier rassemblement waaye lii dafa weesu mbirum parti politique wala mbirum société civile wala mbirum daayira wala mbirum lii ak lële moo tax ñu ne comme waa société civile bi ñoom woote nañu ñoom it le 30 ñuy woo sénégalais bu ne bu ko mënee te fekkee ko te tal ko bum ci tàyyi na jóg dem place de l'obélisque dooleel société civile également ci woote bi mu woote lii de du lu bari lu ñu laaj askan wi te nag askan mooy changer réewam kenn du ko changer ci place am kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu yokk ñu sutura yokk jàmm ci réew mi may ñu Macky Sall ak ñi mu àndal nga xam ne nitu fitna lañu te fitna bi li leen ciy dooleel mooy ni ñuy utiliser police gendarmerie ak justice yàlla nañu yàlla tàqaleeg ñoom ci jàmm yàlla nañu yàlla tàqaleeg ñoom ci jàmm yéene yi nga xam ne yéene yu bon lañu am ko ci réew mi am ko nit ñi na ko yàlla wëlbati si ñoom di dellu ñaanal nag suñu kilifa Serigne Salih Mbacké nga xam ne taxawaayam ak liggéeyam ci Sénégal ñëpp xam nañ ko tey yàlla def muy anniversaire bi bi muy wàcc liggéey yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko yokkleeram fi mu tëdd taas ñu ci barkeem li mu liggéey ak li mu mus ñaan te yàlla nangu ko yàlla ko yàlla tasaare ci senegal tasaare ko ci àdduna di nuyu sëriñ saali Cheikh Salif Mbacké di sama sëriñ di sama baay yor xilaafa gi tey di ñaan yàlla yàlla may ko wér-gu-yaram may ko gudd fan bàyyi ko fi lu yàgg-yàgg liggéey bu rëy bi muy def te ñëpp teg ci bëtam diggante daara ji ak tool yi ak tabax ay jàkka yàlla na ko yàlla yokk ci liggéey boobu ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamualeykum